ak lan la ñu war a mën a def. Pastef da ngeen di sonal seen bopp seen wax yi du bougé wa ba mu génnee ci gémmiñ la seey. duñ fi def dara. dama ne réforme yii ñu la wax xanaa jomaay taxaw ci mais bu dee jëmmi Sonko rek parce que daf ko arrangé wul. lan moo ko ciy waa dérangé. am na si bi rek arrangé wu ko pour mu tëbal ko. si naka. boobaa justice bu am indépendance am ci dëkk bi mooy moom c'est futi mais attends bu ñu doon tëbal loi d'amnistie nga foog li ma lay wax kaamil la dama koy bind ko li ma lay wax kaamil la kenn du ko weddi expliquer ñu loi bu tëb justice hmm. indépendant mënoo tëj kenn bàyyi Sonko ci bitti lu tax parce que d'ailleurs appel à l'insurrection yoon da koo aaye te Sonko da koo def loolu rek doy na ay duma loolu rek doy nay dóor te yoon da koo bañ man mii bu ma ko defoon ci plateau bii dañoo santaane pour ñu jël ma yóbbu ma loolu nag loi boobu mënoo koo tëbal àtte tëj nag mën nga tëj ku ne mais moom du rëcc boo yi taaloon Auchan yi xoolal eh PV yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi da yaakaar ne dañoo foog ne yéen loi amnistie dañoo jël dossier yëpp lakk ko déedéet dossier yaa ngi sur place tegu dossier yaa ngi sur tegu ba tey ubbi la rek xëccaat rocci ci trois yi boo yi taaloon biis bi fee seen enquête ak ca machine ba tey mooy ca yaraax Hmm. léegi loolu yëkkati ko kan la kan la arrangé man bu ma sañoon ñu dindi ko quand même bala ñu ko dindi ñu réforme justice bi ma am kon da nga jàpp ne loi d'amnistie bi du tëb ah, ay digge la rek ci lañ bànneexu ba nekk candidat quand même Sonko candidat la grâce à amnistie waxal dëgg yow tamit mais yow nooy bànneexoo ci mbir war ci nekk président Sonko nekkul candidat newul candidat élection yi ah ok législative waaw lu ko ko def candidat amnistie su doon amnistie fii ak cinq ans du mën a nekk candidat bu dul am na euh, contumace bi ñu ko dóor nag mais yaa xayti mu laa nit da ngay utiliser sa xel lii Sonko du ci def dara. du ko laal du ko laal. digal sinon mën na ko laal waaye du laal justice bi xam nga dafa wax la loolu justice boo ko réformé mu am indépendance c'est-à-dire yow amatoo ci baat est-ce que sénégalais ñoo war a xam justice bu indépendant mooy lan. Hmm. yow comme lii mu doon wax ni ci campagne yi maa woo Ousmane Diagne maa woo Ousmane Diop amatu fi de boobaa loolu amatul de xam nga. Hmm. léegi bu loolu amatul. kon justice day demee cëggal guyam moo tax ma ne la duñ ko laal. d'accord wala suñ koy laal duñ laal justice bi un des de mais réforme justice bi ba am indépendance. Hmm. am indépendance totale laa wax nag. Hmm. waxuma indépendance partielle de. totale mën a décider mën a xool woo ministre te du tàggu président boobu justice bu amee fii ci Sénégal waa Pastef yëpp ci kaso bi lañ jëmaat. léegi lan moo doon te beneen bi ci topp. mais ñetti point yi ñu jubóog Macky Sall kenn xamagu ko te sénégalais war nañ koo xam quand tamit fi may jeexale tamit Sonko nag léegi il est temps mu génne patrimoine maanaam publier ko bala ngaa wër nit ñi ne alalu réew mi ngay wër mais publier sa patrimoine bañ xam yow. en tout cas def na ko. defu ko. def na ngeen di laaj mu def na ko mais publier ko war transparence. looloo tax. lan moo tax mu koy publier mooy transparence. dégg xanaa luy of nag wax. man li waxu waxuma loolu de léegi nga mais xamoo def na ko léegi na ko. attendons de xanaa nag bu euh, ñu toog sànq sànq sànq yaa na na na kii mi yëngu sonn nga. ngeen bu bu <laughs> léegi sànq yaa ngi koy wax nga ne peut-être kii mu ngi topp baax baaxu Sonko rek di wax am am peut-être am na am na ab euh, nu mu tuddati ab ayib bu ñu ko mën a tuddal mais te ci assemblée nationale. waa mais tey ci assemblée nationale. ak majorité bu ñu am xanaa jàppoo ne juróomi at yi ñu jëm dañ fiy toog rek di def ay ayib am na loo xamante ne jàpp nga ne ñoom war na nga war leen ci mën a woo ñu def ko lu baax. comme ah, la mooy réforme yi ñu wax ñu def ko. dama hmm. kaa yàkkamti man te bu dëgg dëgg yàlla nag moo war a am. waay Pastef seeni wax lu jariñ réew mi la mais dañ kaa nangu te jëf. Hmm. Mohamed. Hmm. appel à la waa Jomaay sax nee na léegi dañ koy def loi yow buñ ko defee loi. mais sénégalais bu ne di nga gis sa bopp ci nomination yi mais nomination yi bi passif la passif passif la ba am ministre ne la rapport yi may jot sax damay xool CV yi ndax passif la wala mais loolu appel à la candidature ba amee loolu du am passif seeni wax jariñ la ci réew mi mais seeni jëf moo jariñul réew mi seeni wax ak seeni jëf moo àndul loolu mooy sama problème ak ñoom d'accord loolu dong la. 13h hmm. jot alors euh, déedéet Abdou Nguer fii nag du laay wax heure bi jot moom kay bu la neexee yow nga wax ci jaar nii dem bàyyi ñu ñu continuer suñu ah, émission mais fii moom man maay tëj. Euh, Serigne fexee la tëj nag. ñu dem ci présidence assemblée nationale. Hmm. ñu bëri jàpp ne Ousmane Sonko dafa war a mën a des primature ñii jàpp ne war na mën a dem assemblée nationale pour éviter dualité entre moom ak euh, Bassirou le président de la République Bassirou Diomaye Faye ban moo war a doon choix bu gën selon yow. waa mais man selon man ah. Hmm. parce que wax naa ko rek sànq. dama wax ni euh, Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ni si ni muy doxee ci politique am na ci stratégie. parce que boo xoolee ni mu accéder au pouvoir si nu gaaw nii lépp ci stratégie ak xalaat moo ko accéder loo au pouvoir le plus rapidement possible. Hmm. kon moom xam na lu muy tojee ci na xam d' autant plus que élection yi ñu génn ñëpp xam nañ ne ay élections yu amoon njëriñ la ci moom. mais nag yàlla defal na ko sutura ba parce que majorité bi mu doon wut. assemblée national am na ko. naa nag tey question bi mooy est-ce que dafa war a dem wala dafa war a toog. man ci suma ultime conviction ak ci suma gëm-gëm. donte nag póotum biir la ñoo xam la def après. Hmm. mais man la ma gënal ak la ma gis jàpp ni mooy gën a doon njëriñ itam mooy soo Sonko des ci premier ministre man loolu laa gën a gis parce que le poste de premier du le poste du PM. est un poste éminemment politique il faut que ñu rappeler loolu. xam nga dem assemblée nationale am au nom de la séparation des pouvoirs tey influence politique bi nga xam ne war na ko mën a am ci administration bi am ko également sur l' ensemble des ministres bu boobaa loolu mun na ko tënk. dem assemblée nationale mun na ko tënk ci loola. Hmm. kon jàpp naa ne aujourd'hui Ousmane Sonko bi nga xam dafa yàgg taxaw taxawaayu Baye Fall taxawaayu bouclier. ba nga xamante ni dafa réussir ba mettre le président de euh, le président de la république à l'abri des critiques hmm. donc jàpp naa ni président premier ministre booba nga xamante ni depuis lors mi ngi assumer son rôle sa responsabilité des primature itam yàqulu ko dara kon jàpp naa ni bu bëggee également conserver influence bi nga xamante ni am na ko ci administration bi te bu ñu fàtte ni y a autant de défis aujourd'hui yuy xaar Sénégal ci yaa yuy xaar Sénégal te wax nga ko léegi en termes de reconfiguration politique Hmm. peut-être refon reconfiguration politique mën na amaat te à partir de ce moment là on aura besoin de Ousmane Sonko bu nga xam dafay sol véritablement le casquette politique mun ko incarner dans l'espace politique hmm. kon jàpp naa ne aujourd'hui d'esprimature man kon nga jàpp ne dem assemblée nationale da koy suul politiquement non politique parce que ñi jaar assemblée nationale yépp itam assemblée nationale dañu suul parce que assemblée nationale boo fa nekkee da ngay ni ngay tënkoo day gën a jéggi dayoo par rapport ak boo nekkee premier ministre parce que wax naa la ko léegi au nom de hmm. en tout cas si tout va bien si va bien mu des primature man pour man mooy li gën a politique logique politique loolu mooy logique politique. Hmm. xaw ma nag lan lay décider après parce que wax naa ko léegi ci xalaatu politique am xaw ma lan lay déggoo ak le président de la république ci la ñu war a def. Hmm. mais ma gis-gis moo doon mu des. primature gën a mën a incarner li nga xamante ni moom mooy euh, véritablement son rôle de premier. son rôle alors bu ñu xool tête yu dessiné wu pour mën a occuper perchoir bi bu ñu génnee Ousmane Sonko ñi ñu ngi tudd Amadou Ba Guy Marius Sagna doyen Alla Kane euh, kan nga jàpp ne war na ko mën a euh, téye. ñoom ñëpp mën wala wala ñu xaar une première fois jigéen jiite ko aussi. ñoom nañ ko doon parce que ñi nga wax ñoom ñëpp c'est des cadres. te poste assemblée présidence assemblée nationale am na lu mu laaj non seulement vécu bi. Hmm. expérience bi ak xam-xam bi. Hmm. parce que un il nga nekk également un homme bu xam yoon xam yi tam le règlement intérieur assemblée nationale. naka lay demee te Ayib Daffé. Ayib Daffé aussi xam na ko maîtriser na ko. Amadou Ba ñoom ñaar ñëpp ce sont des juristes. Hmm. yoo xamante ni bu ñuy. Euh, wax sur des questions de droit da ngay xam ni c'est des questions yu nga xamante ni ñoom maîtriser nañ ko am nañ ci xarante hmm. mais daal ce qui est certain mooy au sein de PASTEF y a beaucoup de cadres yoo xam ne aujourd'hui nekk présidence président assemblée nationale wala présidente assemblée nationale jomm leen hmm. que bu ñu fàtte ni ci liste PASTEF y a beaucoup de cadres qui ont été investis ouais. y a de cadres de même que y a ministre yoo xamante ne aujourd'hui sax ñu ngi ñu ngi ci biir ci biir liste bi mm. xamuñu nag lan la ñuy décider après dañuy des wala dañuy toog mm. mais ce qui est et certain mooy au sein de Pastef a beaucoup mm. bi ak vécu bi ak envergure bi mi ngi fa Abdou Nguer am voix yu jug jàpp ne ah. euh, Ousmane Sonko dafa war a des par primature ñuy jàpp ne dafa war a dem Assemblée nationale ban gis-gis nga si am lu mu ci def baax na mais man nag du ko conseil